DAG, bi euh, président Macky Sall moo lancé depuis le mois de novembre 2018 euh, mu xawoon am tuuti retard ci déploiement bi gis nañ ko euh, xawoon am ay problèmes administratifs notamment avec DCMP ARMP pour valider yenn marché mais si jàppale suñu ministre de tutelle madame Ndeye Fatoumata Tall problème yooyu yëpp réglé nañ ko israéliens yi parlé avec ak et ba avons ñu ngi commencé à travailler. bi depuis un mois ñu ngi nekk fii di liggéey yaakaar travaux yi dañu accéléré bu baax a baax a baax tey base logistique bi yëpp équipement yi aussi lu si bëri ñëw nañu euh, ñu ngi nekk di activer wu pour que fii ak fukki weer incha allah ñu mën a pare dag bi dag bi nag comme ni ñu ko waxee euh, dag la comme yeneen dag yi mais particularité am nag dafa nekk ne euh, dès la première année dañuy mën a permettre ay groupement d'entrepreneurs agricole mooy comme jeunes yi nga xam ne ñoom lañ leen may sànq engrais ñu mën a ñëw installé wu fii occuper ay serre serre nag soo ko déggee c'est la haute technologie ci wàllu agriculture ci wàllu mbay xarale bu am solo la bu bu bu bu bu bees la bu yees la. ñun ñun ñëwuñu fii rek di aménager di ko occuper di jël ay emploi ouvrier agricole ak yooyu ñun defuñu loolu loolu suñu vocation ñun état la ñun on est pas un état producteur mais dañu nekk état boo xam ne dafay ñëw mettre en place toutes les commodités. toutes les infrastructures yi nga xam ne ñoom la xale yi soxla pour mbay ñu mun leen accompagner xam nañ ne xale yi am nañu problème mu suuf ñu jël leen jox leen suuf xam nañ ne xale yi am nañu problème accompagnement ñu ñëw accompagner leen ak suñu technicien gis nga ñoom nañ leen engrais parce que engrais dañ ko soxla pour béy xam nañ aussi que ne aménagement hydro agricole la ñaare dafa laaj xaalis parce que tey euh, forage soo ko bëggoon bënn fii war a def fi ay goutte à goutte ak yooyu day xaw a compliqué ñun loolu suñu mooy suñu rôle état day ñëw mettre en place tout l'environnement su ko defee xale bi su ñëwee moom day ñëw rek commencé occupé. fii sax président de la république pour mu mën a permettre ñoom Dakar ñu am dak dafa mujjee euh, annulé ay boo yi nga xam ne état moo ko fi joxe woon loolu nag xam nga du neex ñëpp. léeg-léeg dañuy am ay quelques difficultés nit ñi ñëw fii sama suuf la woon ñu war a werante ak ñoom war a coow ak ñoom mais loolu yëpp nag ñun dañu sant suñu kilifa daf ñu sant nañuy privilégié waxtaan yaakaar naa commencé nañ ko ba fu ñu nekk nii ñu mun def rek mooy sensibiliser davantage ñun ñu ngi nekk di xalaat ak ak euh, rapport avec la e, nga xam ne ñoom nañ fa dem Euh, euh, kalaame fa nguur gi ñoom nañ xool ban pexe la ñuy def ba mun leen dédommager éventuellement parce que man xawuma loolu jànguma ko xawuma ko man je suis pas habilité à faire jeunes yi nag dinañ leen sensibiliser su ko defee ñu euh, comprendre que ne lii nii nekkul benn privé nekkul leen mais nguur gi moo ñëw pour accompagner seen doom yeeg seen jarbaat yeeg yooyu ñoom ñoo fiy liggéey donc ñu comprendre ko noonu